an waxuma dafa haram kan mo wax dafa haram ñom ñoko wax mais dafa haram ñom ñi ngi lek lu xaraam. fi mu ne dañu dañoo dañoo juumoon ana <laughs> eh, damay damay rejoindre damay d'accord ci li nga xamanteni ni ki nga xamanteni moy euh, premier ministre eh, ci euh, wañi bi nga xamanteni war nañ ko wañi li di euh, électricité ci administration bi. Mm-hmm. parce que aussi ñom li ñuy lu ñuy gën consommer. ñun ñoo koy ñun ñun sénégalais lambda yi ñoo koy fay. Mm. tu vois parce ñoom tey bu ñu nee 71 milliards ñu ngi koy ñu ci électricité tey benn Mami Ndiaye bu yore benn as néegam. Euh, bu consomme bu bu dugalee benn cinq mille jours la koy durer wala 10 jours euh, ñu indi ñu ben système de tranche bo xamanteni ne c'est-à-dire ben sénégalais comprendre wala ñi ko comprendre ci sénégalais yi mm-hmm. donc euh, mu nekk lo xamanteni sénégalais boobu ba léegi daaw ba ren dawat ji chaque année ñu ñu ñu casse ko chaque année ñu joy ko à chaque fois liñ ñuy wax moy bu ñu ñëwé ci été donc électricité bi da fay gëna cher. Mm-hmm. alors que ñom li nga <coughs> xamanteni ñom mom lañuy consommer. Mm-hmm. ñun sénégalais lambda yi ñoo koy fay donc euh, président euh, ni ñu ko waxatee am comment il s'appelle euh, le premier ministre Ousmane Sonko bu taxawé mu ne dafa bëgg wàññi électricité bi loolu dañ ci d'accord mais damay rejoindre Ada ci li wax sanki que du machine à café wala télé wala frigo bar moy wàññi électricité bi mm. non nañ xol fi nga xamante ni fofu la chéré ñu jéem bu ñu ñëwé comme par exemple bu ñu ñëwé sen bureau yi bu ñu taalee clim bu ñuy génn ñu fay comme ana ni mu koy défé ça bu lu gisee bureau bi buy génn day fay parce que clim yi mooy yokk courant yi tay buñu euh, par exemple aada je pense que warna na possible ñu ñu ñu euh, euh, indi li nga xamanteni modi énergie solaire yi parce que sank yaa ngi wax lampe mbedd yi ñu ci bari tay tey mën nañ ne 60 yi légui énergie solaire mo koy mo koy alimenter nekutul mm. ñun mm. si. Mm. voilà nekutul ñun suñu suñu suñu suñu suñu électricité bi. Mm-hmm. mais bu taxawé wax ci ben affaire. Mm-hmm. parce que nekutul wax lañu soxla ana boobu ba léegi suñu premier ministre mi ngi wax tout le temps dañ war def li dañu war def dañ war def li dafa wara dañ wara passer à l'acte boo waxee lii passe à l'acte mais bul ko bul ko wax tey indi benn benn exemple bu lambda benn exemple boo xamante c'est insignifiant nga teg ko uniquement ne loolu mooy wàññi électricité bi sa mënul nekk parce que sénégalais tamit dofuñu comprendre euh, bureau bu nekk ñoom seen bureau surtout ministres yi aada wax na ko sànq te dama ci kontaan ministres yi surtout dañu bëgg dund au delà de nos moyens ñun te ñoom lu ñu lu cherle ñun ñoo koy fay c'est-à-dire ñun ñoo ciy et c'est ça auto bu sen sen sen gasoil essence yi. ñun la V8 la. dafay c'est ça dafa cher mais <laughs> sérieusement da koy wax te dee. V8 la <laughs> très rarement lay ànd ak yow. mais ah. tay dama ànd ak moom sincèrement. ñom ñun ñoo fay sen électricité ñun ñoo fay donc buñ démé ba taxaw ni sénégalais ñoo tax ñu tok fi nañu liggéey pour sénégalais mais bu liggéey pour seen bopp sincèrement. yi ah, liggéey pour seen bopp moom <laughs> euh, dafa tambali sax bu yag ndeysaan. Hmm. parce que nak ndeysaan ils ont battu tous les records. Mm. scandale sur scandale scandale sur scandale scandale depuis quatre mois. dinañu ñëwaat mais sànq yaa ngi koy wax nga ne ñàkk ñàkk mën la mais man man jàppee ma ko ñàkk mën. mën nañu lan la lu ñu mën mën nañ lu ñu mën lu ñu mën wax ma lu ñu def lañ lañ mën. mën nañ diriger mën nañ sante wax. mën nañ ko tukki. tukki la ñu mën mais tukki bi c'est c'est c'est c'est c'est. ba mu ba ñu commencé tukki ba léegi gis nga lu ñu àndi. ah ñu ngi lay résultat de. non lu ñu andi comme résultat. Ah, ñu ngi lay wax ma ban ah, coopération partenariat moo am ba ñu tukkee ba léegi. actuellement suñu ah, ministre bi dem Maroc. Euh, pour ses pour déedéet premier ministre kay moo dem fële nu mu tuddati ministre des des Sénégalais de l'extérieur nu mu tuddati. moo dem fee Russie. <laughs> oh, oh, oh, oh man li ma ci metti mooy Fall la sant. Adama le Sénégalais mangent beaucoup de pain. Adama dinañ ñëwaat loolu ministre du ko wax. <laughs> alors euh, madame madame ah. Thiam. Euh, Amina ah. ci nga rationalisation des dépenses avec facture d'électricité, euh, consommation bi le premier ministre comme kii premier ministre ni mu ko waxee dañ ko dañu d'accord ak moom parce que rationalisation des dépenses moom bu amee par exemple ñëpp lay arrangé. Mhm. Euh, waaye dañ euh, kii comme économie énergie bi par exemple. Mhm. man je pense que dañu war a yaraat. peuple bi par exemple si mhm. si euh, ni ñuy utiliser énergie parce que je pense que loolu tey bu amee bu demee ba dépense énergie bi di dem ba ay valeur 71 milliards par exemple si niñ koy consommer la te ras nekkul rek ci éclairage public beeg yooyu noonu. Mhm. mais nañ xoolaat ñoom euh, seen train de vie bi ñuy mëne par exemple ak euh, comme kii aadama ni mu ko waxee léegi nii confort bi ñuy am seen bureau yi par exemple ak climat yooyu noonu léegi da ngay gis koo xamante ne day bëgg euh, am confort boo xamante ne yow amoo ko sa kër. Mhm. doo ko nangu def sa kër ba pare nga dem fi ko fi ngay liggéeyee nga bëgg ko faa am. Mhm. loolu la ñu war a xoolaat mais aussi comme comme. mami ni mu ko waxee énergie solaire bi nañ ko exploité côté boobu noonu gis nañ ne loolu metti na si ñun léegi nañ jël élect kii jéem a exploité énergie solaire bi comme électrification rurale yeeg yooyu yëpp mun nañ ko kii mbedd meeg yooyu yëpp mhm. énergie solaire bi mun na ko dékku mhm. loolu aussi dina entrer si côté kii bi rationalisation énergie solaire bi moom gàcce gàllaama <laughs> énergie solaire ah, énergie éolienne mm. cest énergie solaire am na Sénégal toolu Macky Sall yaa ngi fii. Mm-hmm. énergie éolienne soo jaaree booru fayee di nga gis ngelaw li. Mm-hmm. loolu moom am na fi li ñu war a def kay mooy continuer ko ba nit ñi daal affaire bi mën a wàññi fracture électricité bi mën a wàññeeku pour mm-hmm. askanu Sénégal. beneen mbir gis nga il faut ñu nangu éduquer sénégalais yi parce que sama biir kër saa su ne da ngay génn da romb di fay ay làmp mais defal ko def ko ci administration. agent bi moy yar bopom lolu éducation la. éducation la c'est-à-dire so togué ni man man fayuma état moy fay. Mm-hmm. mais attends après sa kaw lay dal. Ah, vraiment c'est-à-dire il faut que ñu nangu fof foofu laa d'accord quoi premier ministre waxé fof mm-hmm. waxé ci ñun nañu nangu wacc mm-hmm. c'est-à-dire sama machine à café su ma ko branché daal defar sama café pareil, na débrancher parce que so bàyyee so bàyyee machine ba nga branché mi ngi consommer même su nekkee lu mu dul bari wu mais mi ngi consommé. télé bi suma ko soxlawul buma ko tal climatiseur bi suma ma ci bureau bi naa ko fay. Mhm. mais ben instant na jël un peu de temps pour ubi ubi vitre bi pour nanga mais des fois les bureaux so démé bir ministre euh, sphère ministérielle di nga fekk 30 personnes yu tok ci ci hall bi ñom ñepp ño bok ben bureau. Mhm. amuñu télé ben imprimante la ñam pour tout l'espace bureau directeur mo am climatiseur mo am mo am machine à café mo am yoyu les, les gens qui sont dans l'administration nekkuñu dans ce confort là dont on parle. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoom la ñu jox ndomba tànk ñoo nek ci confort. ñoo nek ci confort bo xamante ni kenn du xam nu mu dem. Mm-hmm. muy directeur ba muy directeur général ba muy ministre ba. confort bu extraordinaire lañu am. donc opération yi fofu lañ ko wara a. lañ ko war a mm-hmm. parce que ñom ñoo am clim ñom ñoo am euh, frigo bar ñom ñoo am machine. <laughs> <laughs> man xalé yu ndaw yi sax dañu jënd frigo baat def seen nek man man man c'est-à-dire man fofu c'est-à-dire demander à à s'éduquer sur le plan du comportement par rapport à l'électricité mhm. té lolu rôlu AME la AME mom mo war wax sénégalais naka lañu wara comporter au par à à à l'électricité mhm. l'économie électrique maîtriser économie électrique ñom ñoko wara wax sénégalais yi il faut utiliser ces types de lampes il faut il faut avoir ce comportement là so génnee ci biir da nga rappelé amone amoon nay temps dañ doon def publicité yooyu pour expliquer les sénégalais mais il faut ñu continuer ñoolu yar ci sénégalais bi sénégalais bi soo ko yaree ci bureau so démé kërëm comportement bobu lay am mm-hmm. du tal tal lampe am tout le temps mais ñun dans nos maisons dafa am climatisation dans nos maisons dafa am climatiseur donc amna lo loo jom ñu quoi c'est-à-dire aujourd'hui mm-hmm. masse salariale bi président Macky Sall yóbbu na ko foo ça yi enseignant bi mi ngi fayee ko benn salaire boo xam su ko neexee mu wut climatisation def ko këram. Mhm. parce que na fay mën na fay électricité bi te da koy gérer ki yor climatiseur biir këram da koy gérer parce que xam na ni su taalee à longueur de journée climatisation bi consommation bi day fort. Mhm. donc su nekkee mi ngi koy gérer dina gérer bureau bi donc le premier ministre devait demander aux aux fonctionnaires d'être éduqués sur le plan la consommation d'électricité foofu la waroon demander mais ay bureau bu ne dafa war warul am. affaire bassesse yooyu. alors Adam, <laughs> vous avez parlé tout à l'heure de scandale yo xamantene ni euh, mi ngi euh, am ñu euh, man ci japp bi nga xamantene ni mo am ci ONAS ciow li beuri loolu ba ab député dugal ouvert demande d'ouverture d'enquête parlementaire pétition am ci est-ce que mën nga ma wax déjà naka nga jàngatee situation bobu bala ñuy ñëw ci suñu ñetteel bi ponk soxal insécurité. xam nga mbirum ONAS moom. wax deug si yalla suñu waxe rek te yalla tax ministre ba dafa waroon démissioné parce que fan la ko tek nak ci changement systémique moy li fi newoon baxul nit ñi dañu wara am comportement bu bess parce que Cheikh dia docteur Cheikh dia le l'ancien directeur général jamul baramu tuuma ministère bi de mhm. ministre bi la jam baramu tuuma nit ki la jam baramu tuuma mhm. nit ki la accusé koku dafa wara tek tekki ndomba tankam parce que ci Sénégal ñu fal fi nit ay nit ko mu ministre Goulet, y a nañ fi nit kenn fal Abdoulaye ministre pour une semaine dégg nga conférence de presse ci pouvoir donc changement systémique bi mm-hmm. ci quatre mois moi am scandale bu mooy bu feeñ nag mooy scandale bi feeñ bi nit ñi di coow mais yi boo ëpp yi bu te ñu koy laaj mooy contrat bi nga xam ni kase nañ ko Azer mm-hmm. ba jox ko mooy bi nga xam ni sénégalais bi moo ko gagné ñu kase ko jox ko español bi commission bi ñaata la moom la ñuy laaj boobu tamit scandale bu rëy la te sénégalais yi xamul waxuñu ko scandale bu pataa la beneen scandale Je contrat de J.P. jox pour 450 milliards pour mu dem euro eurobond bi commission bi ñaata la. moom la laaj. scandale bu reuy la un scandale engrais 65 milliards marché de gré à gré kañ lañ jox marché bi comment ça s'est passé scandale bu reuy la su nekké li moy changement systémique yalla nañ ci yalla musal.

moi l'affaire de J.P. Morgan, l'affaire de euh, l'affaire de l'affaire Azer l'affaire ONAS Azer wadi da fay tax ñu le directeur général bi mais sénégalais ni ab sénégalais la xagn marché bi jox ko ab espagnol hmm. ab sénégalais mo gagné won marché bi wala mille 1500 villages hmm mu dem sans négocier contrat renégocier le contrat avec le sénégalais mu dem renégocier le contrat avec l'Espagnol. quest kese contrat bële ñëw liggéey espagnol bi espagnol bi le nombre de villages à 1718 villages environ ñuy tàccu le nombre de villages a augmenté <laughs> mais commission bi ñaata

conflit d'intérêt mm-hmm. jox ko le conseil technique lolou du scandale ci djuroom weer mm-hmm. ci djuroom weer de Macky Sall de bam fi fiy fallu ñu ngi fa ñu ngi déggee scandale ba muy waaj a mais ñi ci bëri djuroom weer xam nga lu muy woné nguur la bo xamanteni dañu ñëw pour ut si dërëm ci bop réew mi ces hommes d'affaires xam nga lu ma koy firndel mm-hmm. l'affaire 94 milliards commission lañ ci doon ut de 12 milliards l'affaire 94 milliards commission 12 milliards lañ ci 94 milliards borom Mercalex Atlas 12 milliards la ciy am cette fameuse audio la mm. l'affaire 94 milliards ce n'est pas 94 milliards c'est 194 milliards. 194 ah, milliards nous tous de boromam Taïbou mom la non tayiru sar tayiru sar may 100 milliards à l'état du sénégal kon xam nga ni effort la lay jox dafa may 100 milliards état du sénégal ne fay len ma 14 milliards Ousmane Sonko lay tuddu jabanté né digënté kërëm ak tay kërru tay du sar ba tay ci cette affaire de 94 milliards jabanté na fa plusieurs fois li may wax nag na ma woo. du <laughs> la woo kay xam naa ko donc pour te dire que ay hommes d'affaires lañ à la tête de ce pays. Mm-hmm. fi mu ne nii milliardaires yi ñu ngi ko doon xam ci jamonoy Macky Sall ci vers fin de régime fi mu ne nii ils sont devenus des milliardaires xool leen ñoom ñëpp soppeeku nañ ñu ngi guuxi leex sénégalais yaa ngi souffrir man damaa jeex de waaw wala de. <laughs> ñoom ñu ngi guuxi leex. <laughs> ñu ngi guux ay leex gis ngeen suñu président na face mais c'est un président c'est normal Adama. alors euh, pendant que les sénégalais sont en train de souffrir scandale bi gën a la baisse des denrées de première nécessité. ils ont menti au peuple sénégalais Il y a aucune baisse surtout sur le prix du pain. ah oui non. ils ont baissé le prix du pain mais ils ont baissé le poids du pain. C'est du pain ouais ça c'est vrai. c'est du mensonge les prix des denrées ont flambé d'une manière exorbitante dans ce pays-là. Les Sénégalais sont en train de souffrir. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire deux mois après, les prix vont augmenter. Parce que c'est ça la convention. Mais les Sénégalais, les Sénégalais souffrent en silence. Les ah. Sénégalais ne font beaucoup Parce que ce que c'est un bacan Sénégalais dafa bëggatul génn di marché di la crémogène. donc du ko defati day xaar ba waxtu ba jot mu dem duma looloo tax nak ñu bëggoon ut élément de langage dañoo bëggoon dissoudre ñu xañ ñu ko jox leen ñu majorité parce que xam nañ ni fi mu ne nii l'opinion parce que chaque soir que chaque soir on pose des renseignements sur la table du président et de son premier ministre ils ont les renseignements ils savent que l'opinion ils ont perdu l'opinion xam nañ ko naka la ñuy def il faut renverser la tendance fan lañ koy jaarale assemblée nationale jël leen ñi ngeen rendi leen pour affaiblir le Benno Nous avons posé waral poser pour avoir l'opinion Parce que nous, au Sénégal nous ñoo bëgg ñoom ñoo la dissolution mais nous Sénégal avons ni suñu dissoudre dañuy sosaat yeneen du bees nous nous ñu wax leen Nous leen soo dissoudre Nous leen àndee ci dissoudre. ak dissolution nous dañuy dissoudre. Nous avons besoin xam nga Nous ñu fay de hmm. sama xarit garabu garabu de xarit Nous ak besoin de dissoudre. Nous ci besoin institution c'est de l'éternel recommencement dans ce pays malheureusement ñi nga xam ne ñoom la ñu fal ñoom la ñuy jox beneen biir waaye yow nga ne da ngay dissoudre au conseil des collectivités rurales nga nga nga nga nga fal au représentant du président au haute représentante du président de République un vice-président